maa ngi nuyu Abdou Top gis nga réalisation Abdou Top mm. nañ koy tegal caméra ci ginnaaw <laughs> après ñu koy dugal de fois non Top moo gën a neex ci àddina bi ni muy réaliser loolu nga wax nànk Top mi laa ilaaha illallaah non réalisation moom moom da moom moo dàq suba la tabaski tey di dina dañuy ñëw ba léegi ci Walfadjri Walfadjri victime la ah ok li tax ñu dagg signalam mhm. ay image la yu ne ci internet bi di njaabaan jolle image yooyu la ñuy gis France 24 moom la ñuy gis fu nekk ci réseaux sociaux yi moom la ñuy gis moom la ñu gisoon 2011 man 2011 bu du woon ak wal fajiri li président Sall doon dafa ki gaayam duma ko gis gisuma ko ci réseaux sociaux léegi nag Mamadou Matar Sarr wal fajiri dañ koo fay pour dem jàllale seen programme waa moom euh, Mamadou Matar Sall jël équipe ba mag ñi muy àndal dem ci biir loola waxtaanoo soppaliku xeex muy liggéey def liggéeyam liggéeyam boobu muy def nag ci la Babacar Diagne jar ni tappit kii ba ba nga xam ni Walfadjri ci semaine bi yëpp contrat yi mu si ñëwoon ci ay publicité ak nangam ak sàngam yëpp dañuy dem tooge de boor yàlla na leen yàlla yërëm seex Niass yàlla na ko yàlla yërëm ak fay nga xamu fu mu jëm ñu dem euh, xool as lëf ci vidéo bi li waral ñu tëj Walfadjri ñu dellu kontaan nañ ci Walfadjri kontaan nañ mu nekkoon koo xam ne xeexkat la woon ñu ngi wax ñoom ñoo ñuy xaalal ñoom ñoo ñuy xaalal ne nañu jàll Walfadjri moom ñu ngi siyaare photo Sidi Lamine Niass waaw donc il faut ñu jàll dégg ngeen loolu dégg loolu dégg ngeen loolu waaw Walfadjri Walfadjri wax kon tali bi xale yi baare nañu ko nee nañu Walfadjri la xaar leen ñu wàcc ñu wàcc. teel ma teel ma. donc ñu ngi fii ci xale yi ànd ak ñoom dégg ngeen loolu léegi yéen da ngeen a commencé day jeex ñun dañu day jeex day jeex boobu la ngay def ñun dañu ñun dañu ñun dañu ñoo sonn ñoo sonn ñoo sonn dimbali baax waaw grand ñun dañoo sonn grand. waaw grand dañoo réew mi neexul grand. waaw loolu ñoo ko moom dafa son dégg ngeen loolu. dana jafe nag pour ñu jàll parce que érigé nañ ay barricades taal ay pneu xale yi nag détermination bi ñu àndal doy na waar lool waxoon nañ leen mi ngi noonu lii mooy image yi nga xam ne Omar bun Xataab Gueye moom la Mamadou Makhtar Sarr jëlee foofu la ca Touba. ñu fàttali tamit ci manifestation bi jàpp nañ ci ñu bare bare bari ñoo xam ni nee nañu war nañoo jàkkaarloog procureur ci la ñuy def ñu fàttali tamit ni Ousmane Sonko ay plainte yu bari maa ngi koy xaar ca Touba. ndax nee nañ mboolem jumtuwaay bu ñu fa yàq lépp dafay lalu ci ndoddam ndax lii lépp moom moo ko sooke euh, kon tey waxtaan wi mooy Omar mbaa lañ doon wax ci jamono bi yaa xam euh, euh, porté plainte saa njoogu du dellu siwaat mooy dafa mel ne rey ay idée ak suka mooy ñu bari li tax ñu daa ko ñu bañoon mooy maanaam kër wërte rey comédie hmm. te loola su jàlloon dafa mel ni dañoo bëggoon rey ñoom seen idée ak li ñuy def maanaam di imiter nit ki di ko tooñ ci loolu di jàllale seen i message hmm. léegi lii itamit bu continuer est-ce que télévision dina amatee njariñ parce que ñii ay xabaar lañ doon jàllale hmm. voilà sooy bu xam mbir mi day dem ba doo xam sax la lay nuru parce que ji nga Mamadou Matar Sarr li muy dund nii yi nga ab reporter boo xam ne ab correspondant la daf ci am moment yoo xam ne du ko bëgg raté waxuma sax walfaj fajri maanaam un professionnel da koy bëgg di dund boo xoolee da ko doon def ak benn passion boo xam ne mhm. même ci biir wax ji ak commentaire da ngay xam ne kii li muy dund nii di chaque jour la koy dund te du chaque jour lay mën di def lu mel nii mhm. loolu tax moment boobu moom du ko bëgg a raté mu ko ci àddina même bu nekkoon ci beneen média en tant que professionnel mhm. moom dafa jàpp ne dafa def liggéeyam loolu tax bii damay jël Walfadjri teg fale jël rek reporter bi demoon sur le terrain di def liggéeyam comme ni ko keneen di defee gis nañ fi ab final coupe d' afrique ay reporter RTS jooy. waaw te pourtant su <laughs> professionnel dañ ne yow waroo dem ba egg foofu ci far. mais am loo xam ne benn yoon lay am si sa dund nga dund ko doo ko bëgg a rate nga. Mhm. def li ngay def def sa liggéey. mais mun na am bu tey doon bu bu jotaatoon mun na am doo ko defati parce que li nga xas ba dund ak li ngay dundaat du benn. Mhm. kon dañuy jàpp ne ab professionnel moom moo daan def liggéeyam. Mhm. li wolof naan nag li la ragal da lay gaañ ji nga nguuru Macky Sall bu la ci kenn nax Macky Sall dafa jàpp ne lépp loo xam ne ab Ablaye Wade bàyyi woon na ko ba daanu moom dool da ko war a tere parce que dafa jàpp ni yoon woowu Ablaye Wade jaaroon pour daanu bu dee ni dafa may loolu presse. moom dafa jàpp ni mun na jaar foofu ba daanu moo tax boo gisee tey jii. lu bari du ko mayati presse Sénégal imagine ba mu faloo ak tey jii benn buntu boo xam ne presse bi ibbi na ko da koy boo xoolee li xew weeru mars la même chose aussi tamit bi ñu tollee ci moment boobu moom dafa jàppoon ni presse bi ñooy incité Macky Sall dafa dem ba maanaam. capacité wu sénégalais yi dafa mel dafa xeep sénégalais yi ci ni. war nañ mën a jug te kenn du leen yëkkati. xeeb sénégalais yi ci nii war na nañu jàpp ni lii du yoon ñu xeex ko. xeex sénégalais yi ci ni bu préfet jalgatee wala cour suprême sénégalais yi jug wan ko ni am nañ fit maanaam sénégalais ba nekkoon ci kanamu Abdoulaye Wade. sénégalais boobu tey soppeekuwaatul day la sant Ndiaye sant Meng sant keneen ak keneen ñëw di jàkkaarloog président Macky Sall maanaam du ay nit yu bees ñoo judduwaat Sénégal. mais ñëpp mais bul fàtte nag moom président nee na euh, réew mi kenn mënatu koo taal ndax la amoon mbettaange la te dootul am. non bu mu wax kenn mënatu ko taal. dafa waroon wax kenn waratu ko taal. kenn waratu ko. waaw que boobu bu nee boo nee kenn waratu ko taal ak mënatu ko du benn. maanaam lafi fi newoon juga fii te ña ko doon def ñi ngi fi. Mhm. kon mën gi moom jugewu fi mais boo ne kenn waru ko boobu yaa ngi sensibiliser di woon nit ñi ci patriotisme bëgg seen réew mën na ñu ñaxtu mën na nañu lii waaye kenn mënatu ko. Ah. loolu bu ko dee wax daa waroon ànd ak yu responsable. wax waroon ànd ak discours yu responsable mais moom ñoom ci seen xel danoo jàpp ne tey jii du sénégalais mooy jugal boppam mooy xalaatal boppam mooy waxal boppam sénégalais bu amee fit danoo jàpp ne réseaux sociaux moo ko may. sénégalais bu amee fit danoo jàppale benn Walfadjri bi wane dara moo ko may alors que sénégalais bi pour man danoo dépassé ñun suñuy autorité mmh. ci wàllu xel man dama jàpp ci wàllu xel côté côté fit côté lépp dañoo dem ba dépassé leen ci côté niveau parce que bu ñu demee ba mën di topp Walfadjri ci lii ci jamono jooju réseaux sociaux yi leen gën a suivre. te ñu ngi ciy tasaare loolu. Uh-huh. te réseaux sociaux yi mënuñu ko contrôler comme olof yi li ñu faral di wax loo ragal da lay gaañ. léegi nag lan la ñuy daw bay daanu lan moo leen dugal ci lii bañ egg ci niveau bi. Uh-huh. te njëmbatu yàlla ku koy yëngal yaa ngi koy dëgëral. tey jii demal ci Walfadjri ngay visiter tey jii. Uh-huh. tey jii la leen gën a seetaan la leen gën a xool. mais tey jii dafa am waxtaan ak sama benn xaritu pël Fuuta mu ni ma man de am lu ma jaaxal ci Macky Sall bi lii xewee mu ni ma mag Sonko de bari day xëy rek du ut ay soppe mhm. maanaam mi ngi dem ci Baye Fall mi ngi dem fii di naxante di lii pour yokk mbooloom. Mhm. mu ne Macky Sall day xëy rek di wut ay noonu te langum noonu du tuuti ku mer dem ca. waaw lii ñaataa ko ci jéppi. te bu woon Babacar Diagne loolu du am. kon Macky Sall ku ko bëgg dee ko utal ay soppe. presse bi du nu ay noonam ji nga presse bi bu fi Sonko nekkaatoon tey. Mhm. dama gëm ne liggéey bi ñuy def tey moom la ñuy continuer di ko def. d'accord ah. jërëjëf euh, Omar Boun Khattab Gueye euh, Souka euh, est-ce que li Babacar Diagne def bu dee ndigal la ci am ak fu mu ko mën a amee nekkul ni dafa nar a rey presse bu Sénégal ndax mhm. information nag dafa mel yamatul sax ci wane ñuy taal mais boo invité nit ki sax muy tenir yéen discours yi sax mën nañ la cee porte plainte loolu amoon na suñu mbokk nekkoon foofu la ci defe naa Sénégal seet la xawma ku ñu invité woon muy wax ay wax eh, ba mm. ndax oh, na ma hmm? daloon na ma ci àdd daloon na ma ci rek ci comédie rek xam ne du naka sudul noonu waa càdd indi ñu sommation damaa tooñoon saa moo ma ci dugaloon ma wax ko ñu indi ma sommation. Ah. man voilà. Ah, ma waxaat ci boobu yaa tooñ. boobu ma boobu saa béti piis ma ma ne ko lu ma neex laay def. Mm-hmm. ñu indi ma sommation te yaa xam mbayit ban ma indilee sommation ban ma ko Sadio wax baa ngi hôpital damaa daal di tiit ban pikiir ma te loolu lépp jaru ko nit day xam ne day xam bopp waaw mais nag bii bokkul tey président Sall li muy aaye. ñu def ko ci tele yi li ñuy aaye ñu def ko ci télé yi pourtant ñi ngi ko doon def. moom moo ko moom moo ko waxoon sax Sall ngaar lam tor arwaar pour Guédé. waaw xam nga am na lu fu mu toogoon wax ko fa muy démb li mu benn vidéo bi nga ma joxoon. Mhm. mais sànq Modou defee wax lu am solo. Mhm. mu ni euh, Babacar ci li mu nekk da cee nekk parce que yoon la. Mhm. parce que Modou xam na li xam xam na technique bi waral loolu am. mais tamit technique du tax euh, nit ki bu nekkee ci yoon bu defee dara nga wax ko ni ko lii ak lii ak lii gis nga li li kii wax léegi ni nit day wut ay noonam. tey Macky Sall mën na ko moom Babacar Diagne mën na bëgg lu neex président yi di ko def te fekk neexul ki nga xam ne rek moom moo di njiitu réew mi mhm. xam nga lii lu yàgg la depuis vendredi ñu ngi ci mhm. bi lay amee moom bañ ko waxee rek ni ko lii am na ci kii moom mi kilifa nekk njiitum réew waroon naa am noo xam daf ko waroon na def moom it ci Babacar Diagne mhm. bu ko defee noonu yooyu du ëpp parce que mu ngi wut noonam te noon yaa ngi gën a bari ci côté am te pour am na ñoo xam ne dañ ko bëgg mais lii mu def Walfadjri am na ñoo xam ni contre nañ ko ci te mere ko ci bu ma sañoon muy waxtaan ak euh, nit ñam nitam yi ndax lii tamit aussi du du noonu mais tamit jëw nañ koo xam ni wallaay jëw nañ El Hadj Sidy Lamine jëw nañ koo xam ne bu fi nekkoon lii lépp du am mais nag euh, moom Sidy bokk ak ñeneen ni moo tax d'accord mm-hmm. jërëjëf Souka Adja Betty bii mooy ñaareelu yoon ci nguuru président Macky Sall et pourtant bi mu toogee avant moo toog boog da ko doon ñaawlu ba saa yu masaana am day sol dàllam ñëw fii ñaawlu ko tey nag ci ak ayam lañ ko defee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ci ayam lañ ko defee man pour man en 2023 ñu ñu egg ci lépp avancé. Euh, li kii wax sànq rek euh, Modou nee na nee na fi mu nekk nii mën nga tëj télé mënoo mënoo fexe. ba mhm. nit ñi duñ seetaan télé léegi tele si poche la ñu xewal. Mhm. nit ñi sax booy wax ñëpp a ngi daw jëm ci digital bi. donc am na loo xamante ni boo ko defee man je crois que maire yi paa yi wala ñi nga xamante ni mënuñu accéder ci internet ñooñu ngay lor. Mhm. man je crois que li ñu wax rek. gis nga demum di daf ñu ñu nangu ko ñu bañ ko daf ñoo fragiliser ci lu baree baree bari. damay faral a wax ni ñi jëmm ju tuutee noonu la fit waree. ñeme naa fekk gaynde mu toog mu dóor ko njoos ko. taxaw di ko xaar xam nga nit moom da koy nangul yàlla ñu ko yàlla fayal mu tàggat ci nag ñi nga xamante ni nekkoon na ak ñoom fii man dama daan wax ni bu may xëy si xalaat ni président ngi quatrième wallahi azim sama xol bi day sedd parce que dama naan mm. agent am war xeex wala ñu war la def wala ñu war la jot balaa ñu lay jot jot ko moom te defe naa tàggat na ci ñu bari ay ñoom saaw ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñi ko fi fekkee mais muy loo xamante ni man lu ma ñaawlu la parce que euh, Modou aussi wax na leen mënoon mënoon man peut-être Cheikh mënoon na tëj mënoon na arrêté. après mu def débat xam nga débat boo ko defee sénégalais yu bari dinañ xam ni yow mii li ngay dénoncé dëgg la. li ngay dénoncé dëgg la pour wane ni commencé woon naa wane no commencé woon naa wane. li fa xew yépp mhm. mais. l'autorité nee na ma naa ko coupé après na nga organiser sa débat ñëpp hmm. wax mais lii nii ono honoré wul CNRA honoré wul Babacar Diagne mais ñun aussi daf ñu sono parce que dañoo am ay engagement commerciaux yoo xamante ni hmm. ay nit dañoo dugal seen xaalis war ñu leen di war a honoré seeni mbir hmm. parler aussi donc pour autorité. waaw waaw wala ma coupé quoi. mais quel que soit lu mu waxante ñëpp am jikko aussi mais c'est ce serait plus intelligent moom mu defoon loolu laa wax. waxuma loolu la war a def mais bu ko defoon aussi day gën. te du ñu privé suñuy audi euh, téléspectateur mhm. télé bi ñu bëggal seen bopp. d'accord jërëjëf Adja loolu sax li nga wax nan sabab na avant ñu coupé télé bi euh, ña nga woon ci 700 yu tegal léegi nag euh, abonnement ma nga ca 858 te jàpp nañu ne bala ñu ko tijji mën naa am un million d'abonnés incha allah kon mi ngi noonu ngeen abonné ji rek ca Walf TV wa abonné ci solution info solution TV ndax nag lu wokk Walfadjri wokk groupe solution. Alaaji ndax yi nga wane. daganoon na 2011. Hmm. mais 2023 nee nañ dafa xaraam ba loolu ma waral ñu ne ràpp Walf TV. waa macha allah xam nga euh, affaire bi moom. Hmm. Euh, boo ko xoolee. Hmm. man damay wax ne Sénégal euh, dañuy wax ne qui n'avance pas recule. waaw Sénégal daa arrière. arrière waaw dañu dellu ginnaaw. parce que mbaa non dellu nañ ginnaaw ci waa ci yu bari yoo xamante ne bi mi ngi xew. maanaam dellu nañ ginnaaw. ci bëti ni ni ñu bokkee benn mbir ñu war a jàppante doon benn mhm. dellu nañ ginnaaw ci loolu parce que affaire bi même bu fekkante ni bi am na aussi tamit nga gis presse bi niñ ci doxalee lii moo di doon expliquer fii sànq loolu da nga ko gis ci biir médias yi nga gis ni maanaam médias yi dañoo mel ni léegi dañoo yéenante mbir mi maa ngi la doon wax keroog ne la mm. Euh, li président doon wax naan day fexe ba opposition bi nasax loolu pour mu mënoon koo am presse da koy jàpp moo tax benn presse bi nekk ci ñi nga xamante ne bi ñoom féeteek moom parce que Sénégal nag ngay gis patron de presse béti boo xam ni euh, presse bi muy yor du lay wóor ne la doxut si ba noppi muy yor alal ju jeex di tabax ay immeuble di tabax ay immeuble fu ne loolu Sénégal rek nga ko mën a teg bët koo xam ni liggéeyam yëpp presque la te mu wóor na ni presse bi fi mu toll nii doxut. parce que ñi nga xam ne ñi ngi tiire ñëpp sii di daan nañ toog mu ñuy wax ni nga xamante ni bi noonu la difficulté yi nit ñi di dund ba nga xamante ni bi moom yor sa imprimerie yor sa kii ba noppi mu wóor la ni li ngay tiire jaayoo ko mais nag yenn yi làqatukaay la ñu ne presse baa ngoog maa ngi tiire nangami exemplaire maa ngi tiire nii mais amu ci kenn koo xam ni mën ngaa fay ca sa presse boobu employé yi liggéey comprendre gis naa ci ku yore hangar boo xam ne ci ndakaaru gii. hangar boobu moom jënd ko. xam nga yooyu yëpp da nga koy da nga koy gis léegi nag moo tax presse bi bi mu fexee ba diviser presse bi ba nga xam ni kii na leen léegi nag mën ngay noggatu ñi àndut ak yow noggatu nag mooy lii tey nga tëj Walf suba nga tëj seen TV ginnaaw suba nga def lii maanaam képp koo xam ni kii ni muy doxalee neexu la rek nga daal ne ko karaj daal di koy jàpp ci ruq noggatu ko daal di koy euh, tëj léegi nag yii nga xamante ni bi am na boo seetee président Macky Sall Omar wax na sànq ci yoon wi nga xam ni moo ko may tey li mu am maanaam ku xam yoon wi la parce que président ni mu wëree noonu la xamee yoon wi yoon wi mooy wan yoon Ablaye Wade nag wax dëgg fa yàlla gis nga président Macky Sall daf ñoo wan laay Wade ni mu nekkee woon démocrate daf ñu ko wan c'est que il faut président Macky Sall doxoon ci diggante bi pour ñu mën a xam Ablaye Wade parce que ñëpp mere woon nañu Ablaye Wade ah. ba jàpp ni Ablaye Wade mii nit la koo xam ni euh, du démocrate du kii na dem parce que kii mais après lii di xew nii moo lay wan kan mooy ab laay Wade parce que Ablaye Wade am na déclaration yu bari yoo xam ne président Macky Sall def na ko tey Sonko ngi def lu ko nuru ñi ngi ko ci noot waaw man dégg naa ne lii ak lii euh, buñ ma Cheikh Ndaw euh, yónnee léegi mooy bi mu naan waaw Abdoulaye Wade li mu nar a def waaw confrontation dina am waaw te bu amee maa ñaan armée bi na féete ak askan bi waaw xam nga discours Abdoulaye Wade mu ñoon na discours président Macky Sall yëpp béti boobu jëlaatee Abdoulaye Wade mu ñoon ci wax na beneen nañ ko gé bu kiwee ñu jëlee ko pale yooyu yëpp wax na ko te loolu yëpp taxut Abdoulaye Wade mm. daal di utiliser yeneen voie mm. pour fexe ko nasaxal wala pour fexe ko loolu. si comprendre nga. Mm-hmm. Mm-hmm. te euh, yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni bii. Mm-hmm. ay mbir la loo xam ni il faut que ñu ñu bàyyi xel ci loolu man dama jàpp ni Ablaye Wade. Euh, sunu borom da ko terala. Ablaye Wade waaw c'est xam nga nu ko teralee. parce que Ablaye Wade tey bu fi jóge woon keneen ku kàngam boo xam ne dafay ñëw doon démocrate teg affaire yi ci yoon ñëw dañ koy fàtte. waaw dañ mën nañ koo fàtte. mën nañ koo suul. mais il faut mu am diggante bi lii. pour ah, ñu mën a xam kan mooy Ablaye Wade waaw mais il faut ñu il que defe naa alaaji si lemin moo xew am tuune pour jàmbaar <laughs> <laughs> parce que loolu la bëgg même man léegi euh, defe naa alaaji si lemin moo la ñu amoon te Ablaye Wade ma daan ni ñaan leen may leen ndox fan la woon <laughs> am na fu ko si lami doon nettali dañ doon manifester. mais Ablaye Wade moo ni nañ gàttandoo gaayee ak ndox. vraiment ça aussi sànq yow la wala Modou am na ku ci ni euh, li li nuy wax rek prévention dafa baax wala sóoraale lu ñëwagul. dañ ko ni lii ñu def seen TV. bu nu moytuwul ci ñun la ñuy dem. loolu bu ñu ko xalaatee woon rek dinañ jël suñuy dem. non dinañ ah, jël suñuy dem parce que presse baa ngi ni ñoom ñëpp boycotté. waaw Bougane moo ci communiqué ak euh, defe naa ki yor sud communication. mais euh, xam nga man daal sooyu xam nga pareen saay gis nga yii xew nii. waaw euh, li xew nii Abdoulaye Wade gañe na ci man lu bari. ci li nga xam ni mooy li xew ci jamono jii. Mm. parce que ñëpp buñ koy wax rek. Mm-hmm. danaan Wade le grand démocrate te ñëpp ah. dañuy accepté. Ah, te ñooñ di accepté ñëpp. accepté wu ñu woon 2012. 2012 mm. bu ñu leen waxee Abdoulaye Wade grand démocrate dañ naan non Abdoulaye Wade la. dañ ko mere sauf mais lii mooy mais ñooñu rejoindre rek. léegi lii mooy wane nag. benn ci yow. d'accord ah, li mooy wane ni démocrate la d'accord te mooy ñëwaat it donc loolu en tout cas am na yu bari yoo xam ne bi wax dëgg yàlla nag parce que fii ci assemblée nationale hmm. keroog bi bi bi ñuy arrière kii bi mais Abdoulaye bu organisé bu ko neexoon da koy jàllale hmm. bu tegoon alkaati yi comme ni mu ko war a tegee kon kii manifestation du am mais yooyu le président Macky Sall di jàngee di ah. barricade mbir mi lii du fi am maanaam ñoo li ñu réussir maanaam li ñu uh-huh. maanaam fi ab fi mu jaar moom ba loolu lay fanqal nit léegi jaaree fa nag jaaree fa léegi jaaree fa nag te politique ak ayca organisation élection wax ah. lépp lu Wade may woon moom dafa ñëw xale lépp lu Abdoulaye Wade mayoon nangu nangu macha allah jërëjëf euh, Adja Betty léegi nag beneen bi mooy te bul ci wàllu fajir lay daanele ah waaw d'accord ah, ah. beneen bi mooy Ousmane Sonko dafa joxe cinq millions d'abonnés ma dama dama jàpp ni am na leneen lu des dama fee defoon vidéo avant ma ñëw wal fajiri defe naa ñu bari seetaan nañ ko dama ni woon ñun bu ñu ne dañoo bëgg Walfadjri bu ñu amee ay publicité nañ ko yóbbu Walfadjri am nañ ay gàmm am nañ ay màggal am nañ ay société mais publicité yi ñuy yanu di ko yóbbu feneen comme nee nañ Walf mooy suñu télé mais ngal la boo amee publicité demal nga yóbbu ko foofu am nañ service commercial boo demee la lañ war a jëfan boo xëyee jënd Walf quotidien vraiment nga jënd Walf quotidien léegi nag bul yem ci abonné ak Walf mooy suñu telee boo amee sa télé da nga koy ñàkk li koy ñàkk nag mooy boo amee publicité yóbbu ko fa ba pare di abonné di seetaan di partager. <coughs> voilà kon ñu joxan dig daje ba talaata ak jàmm. incha allah.